wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi gannaaw bu nu santee suñu borom subhanahu wa taala julli ci ab yonentam Mustafa sallallahu alayhi wa sallam di sant a Seexul Xadiim di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa suñu borom dëgëral ko te kartanal ko te wéral ko te defal ko mboolem xulafaaw yi nga xam ne ñoo wuutu mag ñi fu fi mën a nekk ci réew mi mbokk yi del si wan nañ ci jotaay bi nga xam ne baaxoo nañ ko ànd ak yéen muy yóbbali suba fii ci seen télévision Mouride TV ci njàngaleem seexul xadim nafaana allahu bi barakaati ismihi ñu ngi ci suñu fukki jotaay mbokk yi ak ñeent sëriñ bi wax ni kon yonente bi salallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ni sa yakunu baadi umaraau yaslimuuna wa yaksibuuna fa man sadaqahum fi kadbihim aw ahaanahum fi sulmihim fa laysa minni yonente bi salallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ni dana nekk sama ginnaaw ay wóor yoo xamante ni ñoom day dañuy tooñ waaye dañuy nekk ñoo xamante ne dañuy fen mu ni képp koo xamante ne nag yaa ngi leen di dëggal ci seen fen yooyu nga xamante ni moom la ñuy fen wala nga leen di dimbali ci tooñ yooyu nga xamante ni moom la ñuy tooñ su boobaa kooku day nekkul ci man waaye man itam nekkuma ci moom muy bokkul ci man waaye man itam bokkuma ci moom kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi doon na jàngale ni ginnaawam daal dana am ay wuur yoo xamante ne nii dañuy dañuy dañuy ñëw ñoo xamante ne dañuy tooñ waaye dañuy nekk ñoo xamante ne dañuy fen waaye nee na képp koo xamante ni yaa ngi leen di dëggal ci seen fen yooyu nga xamante ni moom la ñuy fen wala nga leen di dimbali ci seen tooñ yooyu nga ñuy tooñ su boobaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na kooku day bokkul ci man waaye man itam bokkul moo ci moom Abu Hurayra radiyallahu anhu jël nañ ci moom mu wax ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ki nga xamante ni moom la yàlla gën a bañ ci ñi nga xamante ni ñooy waroom xam-xam yi nee na mooy ñi nga xamante ni dañuy jóg dem di siyaara ji ñi nga xamante ni ñooy wuuri àddina yi mu ñu nekkoon na ci benn hadis boo xam ne يونت بي صلى الله عليه وسلم مفتي وحني العلماء امنا الله وامناء الرسول على عباد الله ما لم يقارط سلاطين فاذا فعلوا ذلك خانوا الرسل فاعصروهم نينا نيغا خامتاني نوي وروم خام خامي نيوم دا نوي نيغا خامتاني نيوم لا يالا وولو وايي نوي نيغا خامتاني نيوم لا يونت عليه موسى والسلام وولو تي نيغا خامتاني نوي جام يالا وايي نك فيك جخصو وون اك نيغا خامتاني نيوم لا ني تودي uuri addina yi nee na saa yoo xamante ne def nañ loolu te mooy saa yoo xamante ne jaxasoo nañ ak ñi nga xamante ne ñooy uuri addina yi nee na su boobaa ñoom day woor nañ yonent yi alayhimu salaatu wasalaam kon su boobaa moytu leen leen mbokk yi kon nag loolu lu mat a bàyyi xel la surtout ci jamono jii nga xamante ne ci la ñu toll ci ñi nga xamante ne ñoom la ñuy tudde ay xulaba te mooy waroom xam-xame su boobaa dañoo war a moytandiku ñi nga xamante ne ñooy buuri addina yi di bañ a jaxasoo ak ñoom ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñoom day ñooy ñi nga xamante ne ñooy kóolute fi yàlla waaye ñooy kóoluteef itam yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ci ñi nga xamante ne ñoo jaamu yàlla yi waaye fii nag jaxasoowuñ ak ñi nga xamante ne ñooy wuuri addina yi waaye nee na saa yoo xamante ni ñoom jaxasoo nañ ak ñi nga xamante ne ñooy wuuri addina yi nee na su boobaa day woor nañ yonent yi alayhimu salaatu wasalaam waaye nag moytu loolu leen kon loolu mat a bàyyi xel la aw saa yi nee na maa min sayin abu xada ilallaahi min aalimin yasurul umara nee na amut lenn loo xamante ni moom la yàlla gën a bañ ci ki nga xamante ni mooy boroom xam-xam boo xamante ni day jóg dem di siyaara ji koo xamante ni bu àddina la nee na kooku daal mooy ki nga xamante ni moom la yàlla subhanahu wa laa gën a bañ te dafa wax ni asubaabu ala alxasirati ahsanu min qaari ala abwaabi haulaay nee na li ñuy tuddi aw weñ woo xamante ni dafa tong ci ginnaaw aw dem àll nee na loolu day moo gën a rafet ci ki nga xamante ni day boroom xam-xam boo xamante ni day nekk ci ñi nga xamante ni ñooy bunt ñii te mooy wuur yi loolu nag mbokk yi kon lu mat a bàyyi xel loo xamante ni war na def ay jàngat kemtulaay kàttan te mooy ñi nga xamante ñoom la ñuy tuddee woromi xam-xam nañ ko bàyyi xel bu baax a baax kon mbokk yi xam naa foofu la ñuy taxaw li ci yóbbal bi jox leen digle incha allah taala ci beneen yóbbal seen mbokk Mahmoud Ndiaye loon fi ci Touba li gën ci nun yàlla suñu borom defal te dëppale ko li ñu gënal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa